waaw étude bi euh, tey dafa nekk étude bu nga xamante ne Hive Quest daf ko mënee ci fukki dëkk ak benn pour gën a mën a comprendre lan moo tax ndaw ñi jublootuñu ci wàllu mbay donc ci loolu ñu def ko ci fukki dëkk ak benn particulièrement fii ci Sénégal li étude bi wane mooy ndaw ñi jublootuñu ci Sénégal ndax point yu bari bi ci njëkk mooy mënatuñoo jot ci suuf tey jii nii pour nga gis euh, ay gone yoo ne am nañ suuf bu ñu mën a bayee nekk na jafe-jafe lu enquête bi génne beneen bi nekk aussi wàllum financement tey bu ñu bëggoon a def agriculture financement dafay poser problème du ñu xam fu ñuy jaar pour am financement ndaxte xam nañ ni aussi agriculture boo ko bëggee def dafay laaj ay moyen Euh, ñetteel bi nekk li ñuy wax euh, xarañte yu bees yi la nouvelle technologie tey boo xoolee jeunes yi ñoom ñooy ñuy njëkk a adopté ñuy njëkk a jël nouvelle technologie mais nouvelle technologie yooyu gisuñu ko ci agriculture donc loolu te xam nañ ni am na ay benn benn yu ñuy tuwee ay start-up naka la ñuy mën a jàppalee mbaykat yi ba di leen jox ay information yu am solo wala ñu jox leen ay technologie yoo xamante ni dañ mën a développer seen agriculture te du duñu mën a continuer di ci def coono bañ suñu maam yi daan def donc loolu aussi les nouvelle technologie adaptées à l' agriculture bokk na ci point bu nga xamante ni étude bi vraiment génne na ko ñeenteel bi di ko tënk nekk formation mooy tàggat ndaxte tey bu ñu bëggee bay muy bay noor di bay nawet jeune bi dafa soxla tàggat nekkul ni rek suma ay maam wala suma ay bay nii lañ doon bayee noonu laay continuer di bayee mais soxla nañu tàggat te loolu étude bi génnee na ko te dañoo kontaan tey ci salle bi nga xamante ni ñëpp ñuy décideur muy ministère agriculture élevage jeunesse ñi ngi fii ñu partager les résultat nga xamante ni dañ ko mën a boole ci seen politique de développement pour l' agriculture. surtout li jëm ci wàllu changement climatique bi Heifer mi ngi liggéey ak producteurs yi nga xamante ni ñoo ngi liggéey ak ñoom ci Sénégal ci di leen jox information climatique producteur bu nekk bis bu ne ñi ngi lay yaa ngi jot SMS bu nga xamante ne mi ngi lay wax kañ la war a taw tey dina am ngelaw tey dina am naaj parce que loolu tey baykat daf ko war a soxla baykat waratul la nekk nga xam dafay xëy rek dem jiwi toog di xaar xamul kañ lay bay xamul kañ lay taw xamul kañ la taw bi di arrêté yooyu yëpp donc ñun ñu ngi ciy liggéey ak ay euh, partenaires di ko dugal ci suñu projet yi ba producteur bu nekk chaque jour di am information bi soxla nga ko pour mën a développer docteur Daouda Ndaw directeur des programmes de Haïfa Sénégal. merci. santoon Diallo mu baax naka ah.